les événements passent mais les souvenirs restent. dund nañ fii lu nga xamante ni man mosuma koo dund. ba ma juddoo ba tey mosuma koo gis. yaakaar moo ne Sénégal dina toll fii. di daj yor seen i yat ku ñu romb dóor. Le choc provoqué par les manifestations de début juin 2023 ne se dissipera pas de sitôt. Au marché Zinc de Pékin, les stigmates sont encore visibles, comme dans cette banque totalement caillassée, ou encore celle-ci incendiée et saccagée. Ces violentes manifestations n'ont pas épargné les commerces établis dans ce lieu de négoce. Les marchands n'ont jamais rien vu de lal naa nii ba commencé jaay rek ñu ne gaa yaa ngi noonu ci la mu buub samay bagage dem kër ga di euh, ajuma bi ñëw na toog ba lalati ñu ne ma gaa yi waaye man heure buñ ne gaa yi ñëw na rek man am nga damay dem dem toog waaye ginnaaw bi daal liñ fi yàq suñu taabal yi ñu doon jaay yëpp lakk nañ am na jour yoo xam ne dañuy ñëw ubbi mais buñ ubbee tamit gaa yi duñu ñu liggéey da ubbi lal ba yaakaar ne yaa ci nekk ful bi ñëw sa kaw xaañ la ay xeer dem sa yoon moo tax dañu leen obligé sax bañ a ubbi sax far daanaka trois jours yëpp mujj ñoo liggéey dara dara. fekkee fekkente ni ngay xëy di liggéey chaque jour toog ay fan yoo xam ne ubbi woo ci yor kër vraiment neexul tey jii la ñuy doog reprendre. man toog naa lu war a mat ay cinq jours yoo xam ne defuma dara bu ma xëyee damay ubbi kii biir toog rek waaw toog démb laa roon samay bagage soog a ñëw boobu ba léegi maa ngi koy nettoyé waaw boobu ba léegi. loolu moom da nga ci perte lu bari. parce que tey jii sa client yi dañ lay woo chaque instant lay woo ndax ubbeegu ubbeegu mais nag doo mën a dem parce que fii boobu mu ngi rëb te am na risque yoo xam ne doo ko jël ay obligé toog ba gars yi reprendre comme tout le monde nga doo booy xool daanaka liñ fi liñ fi ñàkk ak liñ fi tardé ak liñ fi dal ci ay coona jëru ko liñ fi gis keroo moom àdduna jaru ko waaw xale yi toj fii yëpp ñun ñi nga xam ñoo nekk suñuy ñun. dañuy mujj sax di daw man gis nga sama bagage yi dama ko jëloon roñ ko yóbbu ko ci beneen kër waaw bi nga xamee ne affaire yi digg na laa ko xëy di ko di ko roñ waaw dajji waaw Cette bijouterie a failli ne pas échapper au saccage. moom panneau publicitaire yi la ñuy toj ak affaire yooyu mais bu dee biir gi moom amul benn problème xëy na bagage yi ci bitin yi ñu bàyyi woon ci bitin yi lañ yàq ak affaire yooyu rek. Comme d'ailleurs dans cette partie du marché où les commerçants n'ont pas déterminés à défendre leurs biens et ce par tous les mais ñun ñëpp dañ doon bu dañ doon laale buñ buñ laalee dañuy taxaw suñu buntu place yi taxaw xam nga ndax xam nga manifestant yi tamit dafa am nooy taxawee su ne xam nga ñu si bëree dañoo tëj dem xam nga lu ma la mais ñun ñu si bëri dañoo tëj taxaw bu nekkee gars dañoo nar a ñëw ñun tamit ñu wan leen ne carrément ne leen nii xam nga affaire jaamu xam nga wala sax nga xaw a leen ne leen sonko sonko xam nga bañ nañ ñi kii patriote la kon nañ dem affaire yi xam nga voilà ñu tamit noonu lañu doon jéem a ménci ak ñoom ba xamee daal après ku ñëw rek yañ taxaw ne leen nii jàmm lañu soxla. jour bi moom daanaka ñun ñëpp ñu ngi woon fii parce que bëggoon na daaj ji place yi moom di commencé kii mais gars yi bu def fair play gars yi bàyyi. ah da ngeen doon ñëw waxtaan ak. waaw ñëw waxtaan ak gars yi bëgg a daaj. gaa yi fair play bàyyi leen gars yi bàyyi. mais tout le monde n'aura pas cette chance. plusieurs propriétaires ne réussiront pas à sauver leurs marchandises face à la furie dévastatrice de manifestants déchaînés. nii lañ ñuy yanu télé yanu kii sa xol sax day jeex mais doo ci mun dara nii lañ lay rombe di ko yanu armoire yi yi yanu nii di la romb doo ci mun a wax dara waaw ndax booy wax ñu lay kii ñuy dal sa kaw. Au cours des événements qui ont duré trois jours, plusieurs magasins comme celui-ci et les boutiques seront pillées. Pour les commerçants, pas l'ombre d'un doute. Les mouvements de foule étaient infestés de malfaiteurs. am na bandi am na am na tam ñoo xam ne ñoom dañ doon jël jël alalu jàmbur moo leen taxal ñu jóg moom waaw te ay néew ji doole lañ waaw ah lii ñuy tiim di ko jaay moom rek lañ am mënuñoo tukki mënuñoo dem fenn fii mooy suñu waat waa euh, dóor dóor waar fii mooy suñu tool fii rek la ñu am ndaxte liggéey ci jaamu yàlla la bokk defuñ demuñu def dara mun mënuñoo defi dara mënuñoo tukki mënuñoo voyage fii rek la ñu am. Des actes aux allures de cambriolage subtilement orchestrés et menés sous le nez des forces de défense et de sécurité, dont l'attention est détournée par des centaines de manifestants qui mettent la banlieue de Dakar à feu et à sang. À Pékin, Texaco, le constat est similaire et fait froid dans le dos. Plus rien ne reste de cette station-service, totalement saccagée. Les matériels de travail emportés et l'épicerie vidée. état moomul magasin yi am nañu def prêt dem ubbi ay magasin def seen bagage nga jël lépp yàqu ko kooku fan la jëm banque bi après station bi gis nga dañ ko taal yàq pompe yeeg lépp la ñu daj amul fi bàyyi lépp la ñu yóbbu taal fi tataawu jaamur taal fi taxi ñooñu lu seen yoon ci manifestation bi. Depuis, les riverains ne se sentent plus en sécurité. ñun sonn nañ trop lii moom dafa baaxul sax ci yaram nit ñi sax fi ñu dañu ànd ak stress stress mën na am dit yow lekkoo naanoo ñii am seen alal ñu yàqu ko ku génn ñu gaañ la jël sa alal mais ñoom fa lañ ko teg ñun sonn nañ trop ba nga xam ne lii kenn mësu wala ñuy yor seen ay alal station yeeg magasin yeeg ah ñun ñu ci topp soo waaye yenn yi góorgóorlu secteur informel bi ah kenn demul kenn dikkul kenn génnul ah sécurité amutu fi mais lii dafa ñaaw dafa ñaaw ñaaw na ci dëkk ñaaw na ci dëkk ah sous région bi duñu xool sax ñaaw na ak Sénégal ndam gi mu amoon au temps ñëpp di roy si ñun Déçues, les populations se défoulent sur les politiques. Elles ne veulent plus d'une telle situation dans le pays. gisoo marché bi gisoo kenn jëndul ndax client yu bëree bëree bëri ragal na ne bu ñëwee marché sax ñu fekk leen fi. te lépp politiciens yi rek ñoo ñu ko teg ñoom rek ñooñu ko teg keneen dëgg man réew mun a dem naa mais li ma gis musuma ko gis fenn fenn fenn. waaw surtout nag Sénégal Sénégal yeyoowul loolu yeyoowul loolu waaw war nañoo delloo si seen xel dimbali ñu ngir yàlla may nit ñi jàmm. suñu politiciens yi nañu xoolaat seen doxalin xoolaat seen toogaay ñi moytu yenn discours yi. parce que Sénégal lépp looy woote rek del woote jàmm parce que fii jàmm rek moo fi xaj jàmm rek moo fi dox jàmm rek moo ñu jig dara jéguñu lu dul jàmm. ay dañuy wax ne buy ñëw dañuy xool lan moo ko indi lan moo waral ay bi foofu la ñu war a taxaw def fa jàngat jéem a éviter loolu ba lii di bañ a am. kon ñoo ngi ñaan réew mi jàmm politiciens ñu xoolaat seen doxalin xoolaat seen toogaay parce que du ñoom dong ñoo fi nekk ay borom kër a fi nekk ay néew di doole fi nekk ñoo xam ne dañuy liggéey tari ngir joxe dépasse suba. ndax nit ki nga gis mu teg ab boolu fondem fee ci la yaakaar a jaay ba ba bët set mu xëy dem marché dugg yóbbu këram léeg-léeg nga gis xale yoo xam dañuy dox seen yor seen douzaine moom lañu ñuy ambulant di ci faj seen soxla ñu loolu yëpp nga xañ leen ko loolu amul amul amul njëriñ. Pikine est une des villes les plus touchées par les manifestations de juin 2023. de ses marchés les plus connus y a laissé son charme. Des biens privés et publics ont été saccagés. et certains commerçants auront du mal à s'en remettre après avoir perdu une partie, d'autres la totalité de leurs biens.